salaamaaleykum cher internaute univers info tv di leen bëggee bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye di leen ziar à chaque fois comme ni ñu koy defee rek saa bu actualité amee loo xam daf leen di intéressé dañuy bëgg di ko ànd ak yéen rien que pour vous faire plaisir ba tax na ku ne xam na série bu mag boobu muy Baabel ñu gis na nag tout récemment tàkkusaan bi nga xam ne def nañ ko sénégalais yi nangu ko mu neex lu neex lu neex vraiment ci noonu nag la univers info tv ñëw fekk nga xam ne moo di acteur bu mag bi muy Sadikh Thiam fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xam ne at na ci carrière am ak tamit intégration opération biir Baabel Sadikh loo def. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa àdduna di la nuyu sama xarit bi faa di nuyu sa cadre bi nga àndal di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi suivre univers euh, di am mbégte contentement bu mag nag si toog ak yow mm. jotaay bi xëy na yàgg nañ koo bëgg waaye tey la ko suñu borom dogal waaw mooy mm-hmm. nuyu bu baax tamit euh, ñi nga xam ne ñoom laay àndal liggéey boobu ba léegi muy sama waa kër ak sama xarit ak samay rakk maanaam ma tuddee Pape sama xarit la tudd Tidiane sama rakk rek tudd naa ñëpp ak soxna Maritu Diop mu baax mii waaw ñu ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. Euh, ñi lay seetaan nag ñu bari ci nit ñi dal dañ lay seetaan mais duñu xam réellement kan mooy Sadikh tey boo doon ñu wax yow yaay kan lan nga ñuy wax. <laughs> waaw loolu moom dinaa sawar trop wax la ko euh, Sadikh Thiam Adama Dieng benn ndongo daara la benn taalibe bu yaru duggul ci dara xamul dara mënul dara day jéem rek voilà kooku mooy Sadikh Thiam mm-hmm. voilà ñu gis ni que taalibe bi da nga koy incarné bu baax a baax mm-hmm. ndax gisoon nañ ngay def ay son di way nga xam ne mooy Serigne Saliou mm-hmm. jékki-jékki rek ñu gis la ci ci ci théâtre yeeg yooyu est-ce que transhumé boobu noonu amul lu mu def benn impact sa carrière euh, maanaam ñi ñi ñooy gis transhumé mais affaire bi yaakaar naa bi may def théâtre bu mu amee treize ans bu dee mat na treize ans si la yam man laa njëkk def mais peut-être ñu bari xamuñu ma ci woon parce que Sénégal danoo baaxoo bu ñu gisee nit si dara rek ñu ne aw oh, kii de démb la commencé rek si noonu non non théâtre ñun yàgg nañ si peut-être daaw ñu def ay cinéma daaw ñu def ay téléfilm ñu ngi woon ci sur bi di mbapat ndax moom lañ xam. Mm. théâtre sur scène lañ daan def. Mm. voilà xëy na yàlla def nag comme que euh, téléfilm yi dafa xew ñu gis ñu si nag wax dëgg yàlla soxla ñu si faaw ñu dem wuyu ji leen jox Sénégalais leen moom. Mm. mais ñun télé théâtre yàgg nañ si. mais lan moo nekk source de motivation ba nga dugg ci. moo ci motivé amour la rek par amour parce que théâtre moo doon loo xamante ne li la si dugal du la si génnee mm-hmm. boo si duggee ngir siiw doo si doo ko am boo si duggee ngir xaalis doo pour nga am ka yàlla mooy tax dogal dëgg nga am ko mais li nii li li nga xam ni mooy gën a tax ñun ñu dugg si théâtre bi amour la moom dañ koo bëgg mm-hmm. mu doon suñu passion nag ñu yàgg si trop vraiment yàgg naa ci mm. ndax euh, booy fàttaliku semaine nationale de la jeunesse 2015 man maa représenté waa Dakar ci côté Pikine. Mm-hmm. kon yaakaar naa loolu du démb 2015 ba léegi xaw na yàgg te avant boobu yàgg nañ ñu ngi si mbappat yi. Mm-hmm. est-ce que dund nga ci tey jii lu la xaw a euh, marqué parce que boo xoolee côté Mouride ay genre waay way sëriñ mel ni dugg ci ay côté sëriñ par transhumé ci genre série yi ngeen di def nii mm-hmm. maanaam genre transition yooyu noonu des fois nga dund ci yoo xam ni. famille bi duñu antan yooyu comme par exemple ni ngeen dundee série yi parce que léegi dañoo dem ba maanaam yu bari sax rusatuñ ko pour def ko waaw bu dee wàll boobu moom awma si benn problème vraiment parce que yàlla suñu borom dimbali nañu ba ñu ngi sàmm suñu image ñu ngi sàmm suñu image bu baax euh, ba duñu wax wala ñuy def wala ñuy dem fu ñuy xeebee wala ñuy def loo xamante ni képp ku nu bëgg rek di nga ko gis di ci am la metti waxuma laak ñun si ngañ bu dee wàllu jóge si waaye dem théâtre non wax naa la ko léegi nee naa la man théâtre laa njëkk a def suñu borom def nag xëy na way bi ñu moom la ma gars yi njëkkoon a xamee sax mais yàgg na noo jouer théâtre pour jóge si way bi dem fee am si ay feru murit ay tijaan non amuñu benn problème parce que du ma jouer du ma jouer si àdduna lu may xeebee duma ko jouer comme loo xam bu ma ko joué tey ñu ne saa da daan jàng waaye mi ngi def léegi nanga non non même bu doon même bu doon duma ma jàngkat musuma jàng musuma xam luy jàng sax du ma joué loolu sama man man bokk par personne du ma ko joué waaw ko xam xam ne du label bu ndaw bu mag la biir intégr nan nga intégré biir Marodi ah, ni ma fi intégré nag par casting la rek euh, may nuyu bu baax sama yaay maman Ndeye Khady bu ar ko Dakar mhm. sama yaay dama toog mu woo ma ni ma ah, Adama am na benn casting bu waa Marodi def de mais Père Diop moo koy présider ma ne ko Père Diop Père Babacar Diop Mourchine TV moom it sama papa ju baax comme yàgg conseil moom it ma ne ko ah fan la mënuma ma ko Dakar ma ne ko yaay booy casting yi mu ne ma noo demal rek ma dem boobu maa ngi def ay rasta man ku ma xam bu yàgg xam ne ay rasta laa defoon ma daje ak Moda directeur casting Marodi ñu waxtaan mu ne waaw ah, vraiment sa profil neex na nu sa voix neex nanu mais rasta yi mun xaw a jaaxal te daa am benn projet bu ñuy def boo xam ne dina la si soxla ma ne ko man théâtre rek laa bëgg lu ma ci waaye teg dama koy tegoo bu dee lu mën a nekk waxuma watul de dama xëy watu mu rasé ma woo ko ni ko Fall watu naa de bu dee li ngeen doon wax ba tey mi ngi ci bu dee amoo leen personnage boobu man bu ngeen ma woowee ko def mu ne ma wax de casting la rek man ko d'accord man ba may watu boobu amaguma preuve ni dinaa ko joué dama gëm rek ñu ma ni ma dañuy def casting ma dem def casting bi fekk fa waaye xam nga Marodi seen casting ni mu demee mais ma gëm sama bopp def li may def dem ñibbi fàtte naa jël nañ sama numéro photo ma man ñibbi toog naa ay deux mois trois nekk Saint-Louis ñu woo ma téléphone ni ma ah saa dañuy def casting général si film bi nga ñëwul ma fajaru ñëw def casting général bi delluwaat Saint-Louis toog naa ba fàtte ko toogaat naa trois mois presque xanaa ñu woo ma ni ma dañuy def sélection te dañ la jël si loolu Sadikh Thiam bi loolu moo fa dugal mhm. waaw may nuyu waale bu baax waa Marodi yëpp di ñaan suñu borom lépp lu ñu bëgg rek yàlla nañu ko yàlla defal ndax macha allah ay jàmbaar lañ. Mhm. voilà mi ngi noonu. ci biir euh, série bi ñu ngi gis ni yaa ngi nekk ak sa jabar mhm. ah ñu ëmbal ko ci mu leen la yow ñu juróo doom bi nan nga dundee loolu ci la fekk nga nekk ci po boobu noonu. metti loolu def metti na trop ndax donc booy lépp looy joué te yëgoo ko yow en personne keneen ku koy seetaan du ko yëg. man dama ko doon joué comme si que dëgg la sama jabar moo def lii noonu laa ko doon joué ku xool li ma doon joué xam ni naturel na. parce loo dund la ko. personne mais peut-être du ñàkk si réew mi que fii loo fi gis rek am na ko def te amaane li tax gars yi inspiré aussi ba bind ko am na ma loolu laa jàpp. yow neexul non lu metti lu metti parce que dama koy joué di di remplacer man ki ko dund mais xalaat maanaam loolu neexul am sa jabar. nekk ak moom di def si moom li war si moom mu xëy dem ëmbi feneen ñëw jox la nga war ko téye par islam neexul de loolu laa doon yëg. Mhm. waaw bu baax. ban ban séquence la ci gën a marqué bi ngay joué loolu. séquence tudd bi bi ma waree dem tudd xale bi. lu tax boobu na ma parce que ku nekk sa kilifa nga am doo mës toog sa kilifa ni la defal ma nangam nga nekk ko defuma ko danga koy def. parce que benn yàlla mooy ko jëkk sant nga nangu ko kon bu la sa kilifa ñaanaatee danga koy def léegi may imaginer man kii doon tuddi doomam kii doon tudd doomu jàmbur kër gi kenn xamul moom kese mu xam ko est que yaa ngi imaginer yow loolu poids boobu ñu diisee nga war ko yanu war ko sutura dafa doy waar loolu laa doon yëg moom séquence boobu moom doy na waar. kon bi nga koy dem di ko di ko di tudd xale bi danga nga mel ni yaa ngi ci vraie bi. boo ko seetaanee di nga ko gis. parce que gis nga lu ne si xol si kanam lay fay. bu nax kenn kenn mënu fee nax kenn boo boo toogee boo toogee tey ah, di jouer di wax di def lu la neex jàpp ni yaa ngi nax nit ñi naxoo kenn sa bopp ngay nax li ngay def na nekk sa xol nga yëg ko yow jox ko nit ñi ñu yëg ko loolu a gëm moo tax ma ne la boo seetaanee di nga xam ndax fan la ma tolloon waaw sori na trop si ñun ba pare yéen a ngi incarné rôle lu kilifteef bi maanaam bi ñu jox peeru njuga est-ce que loolu de nos jours mi ngi marché ba léegi parce que boo xoolee lu ci mel ni artistes yeeg yi mu mel ne noonu am na fu ñuy toll ci niveau duñ mën a dëkk ak parents yi respect boobu noonu du daw ci kër gi lan ngeen jublu woon ci côté boobu noonu. Euh, man nag du ma mën a tontu si wàllu palaasu benn artiste mais sama place mën naa si tontu. Hmm. en tant qu'artiste. Euh, sama kër man de noonu laay dundee ba tey peut-être nekkatuma suñu kër famille. mais man ak sama papa comme li may joué Babel ak Père Ndiougo loolu laay dund dans la vraie vie ku ma xam dëgg boo ko seetaanee dina xam li may wax. Mm-hmm. waaw man du ma taa taaw papa du ma sama taaw papa mais bari na lu ñuy def suñu kër dinaa ko yëg ba pare. Mm-hmm. dinaa ñëw def sama xalaat tamit ñu ma si dara vraiment ma si nuyuwaale sama papa El Hadj Daouda Dieng di nuyu suñu waa kër yëpp boo ko nuyoo rek nuyu nga famille bi yëpp wax dëgg yàlla ñu ñu ñu jàppale ma si loolu ñoom it ba ma mën a tey matale rôle Sadikh Thiam bi parce que Sadikh Thiam li muy joué suñu kër laa ko jàngee génnee ko mu yomb si man trop voilà. Mm-hmm. instant bi nag ko gis ni seen tàkkusaan bi macha allah ni mu réussir euh, dina am ay yenn wax yoo xam ni maanaam benn ñagas-ñagas comme nit ñi daatuñ la comprendre doo moo nekk too nekk ci po bi parce que désormais nag nit ñi xam nañ la nan la Sadikh di dundee ak ay fansam <laughs> man nag yàlla dama man li ma la commencement bi ndongo daara la taalibe la amul benn problème succès non non man comme li ma doon dundee démb ak barki démb moom laay dundee tey ba tey moom laay dundee peut-être tey dafa yokk sax parce que mënutuma romb benn dama daan ànd ak sama gaayen bi Pape Cheikh fu nu mus ànd si àdduna day dem bàyyi ma si yoon bi dama sax da nga mën a nuyoo loolu yàgg na li ma lay wax nii da nga mën a nuyoo foo jaar taxaw kon léegi est-ce que bu ma bàyyee loolu duma ma du ma changé tey daa yokk na instant mëntu ma ànd ak yow fenn mëntu ma ànd ak kenn ku ma àndal da ngay mer parce que fu ma romb damay taxaw jàmm sant Sénégalais dafa gaaw sikkal doomu aadama fii laa toog di lire sama message yéen a ngi koy dégg sànq bu dee ku ma message boo ma dégg laa wax mere naa la ay da maa bàyyi ay da nga changé yooyu rek ngay dégg léegi Sénégalais yi noonu la mel da ngay tëdd di nelaw sax nit woo la jotu la mu ne yaa ko bañ a loo xam ne yow daan nan la ko def bu njëkk di la comprendre tey dootuñu la ko comprendre bu njëkk daan nga tëdd fay sa téléphone nelaw ba doyal ku la woo jot la boo ko waatee daan la waaye saa woo naa la jotuma la gaañ nga ne ko dama doon nelaw dina la may loolu mais tey kenn dootuma may loolu tey heure tëddee nelaw ba yeewu gis sama appel bu ma la wooyee man sax da nga naan waaye bàyyil yooyu bu la wooyee del jël dootuñu ma may loolu. Mhm. Sénégalais moo mel noonu dama leen koy may. parce que loolu lañ fa am métti na moom métti na de <laughs> wala walaay métti na. théâtre dafa nekk loo xamante ni nit ñi bu ñëwatul di la jox waruñu la laaj dan jàpp nii danga see am lu ne gàññi ñi ñaa ngi si sant nag yàlla na yokk mais métier la boo xamante ni ay porteur de voix lan di Sidi Lamine naan la euh, Sidi Lamine naan la voix des sans voix ñun ñooy ñooy toog ci télé bi nga nekk sa kër di dund loo xamante ni lu metti la ma joué ko ak yow que ni ko kooku di dundee sa Tamba ñun ñu ngi sa Dakar ba moom mu am solution nan la war a def ba génn si problème am te dund te mu moom dañ koy rek mu gis ko mën si dund ba génn si kon kooku noonu yaakaar naa ni ku yor sa benn junni wala sa ñaari junni war nga xool artiste ñëw ni ko ah sa teel nii mais tey da ngay yeewu fajar ñu indi la ordonnance koo xam yow doo ko sax xam wala nga dox ba yàgg nit ñi tara sa loxo ni la sa ah, waay man de dama bëgg jënd ordonnance duñ xam ndax yor nga ko duñ xam yoroo ko loolu nag sant la mais dama ciy lancer waal appel rek képp koo xamante ni yow dëkk nga ak ak artiste dund artiste dafa metti dafa metti trop dafa diis bu la yàlla dimbaliwul tuuti rek nit ñi sikk la bàyyi la abadan si loo xam ne dara du leen si wóor. ci côté boobu sax euh, c'est-à-dire day def ay social. waaw parce que gisoon nañ ngay def tournée ci prison yi. si. waaw doon na damay def social avant prison yi daan naa def ay di may ay ceeb di saan ak sama jigéen Roqee Tidiane Diouf bu Macky sàll mhm. mu baax loolu vraiment moom lu mu daan def maa koy jiite. Mhm. daan may ay ceeb ay diwlin ay soble ak yeneen ak yeneen ay yére yëpp da nga daan jël di ko dajal di ko maye mais euh, sama anniversaire dama ko daan def loolu ren nag mu ne pourquoi pas ñu dem seeti ji prisonniers yi ñu dem prison des femmes bu Rufisque ma si nuyuwaale sama yaay directrice bi ma ne pour pourquoi pas ñu jël ñu jël li nga xamante ni dañ koy jël di ko séddale ñi nekk seen liberté ñu jox ko ñi nga xam ne amuñu liberté parce que ki nu tënk si bërëb boo ko dimbalee kooku yàlla moo lay fay parce que li li li yàlla war si ñoom nga def ndax yàlla moo yor jaamam yi di leen jox liñ bëgg kon léegi bu ñu nit si bërëb ba mënut a jëli wàllam nga jëlil ko ko ñëw ko ko kooku yàlla moo lay fayal boppam mais ci côté boobu gisoon nga li xew ci campagne ñu koy ñaawlu trop mm-hmm. ñu koy ñaawlu trop trop trop euh, ñuy ñaan suñu état bi mu xam ni prison yi ay doomu Sénégal ñoo ci nekk ay doomu réew mi ñoo ci nekk mm-hmm. ñu deful dara ñu ngi ci prison yi ñu nu tuumaal ñu ngi ci prison yi ñu nu tooñ ñu ngi ci prison yi ñi def ñu ngi ci prison yi ñi juum ñu ngi ci prison yi mm-hmm. suñu président bi ñu ngi koy ñaan ñi ngi ñaan encore une fois ñi ngi ñaan képp ku mën a jàppale ñene ci prison yi na leen a jàppale parce que ñu ñëpp ay mbokk lan wallahi lazim tey bu Sénégal tàkkoon président sax mucc ñëpp ay dee kon ñu ni neen la nan dimbalante ngir yàlla ndax prison bi li fi xew ñaaw na de ñaaw na de xaw ma ko tooñ xaw ma lu xew lan la mais image yu ñu gis dafa rafetul ndax téléphone lañu gis ci biir ah ak ay chambre indien. waaw ak ay. mais lan moo ko fa dugal. waaw moo ko fa dugal te bul dugg fa de dan ko faa dugal te am na sécurité am sécurité boo xamante ni lu fa dugg am na fu jaar. Mhm. kon bu kenn gërëm ki togg añ bi fàtte ka tax a ñëwoon. Mhm. nan ko lijjanti ñoom seen biir avant tout bàyyi prisonniers yi. parce que nag wax dëgg yàlla ki nga tënk si bërëb muy dund lu metti boo ko mënta dimbali jàmmal ko bu ko tegaat leneen lu metti loolu daal laa ciy wax côté boobu dañuy ñaan rek dañuy ñaan en tant que acteur damay ñaan ñu dimbali leen ngir yàlla tey boo doon wax ci fondation 3S bi sa diir dire solidarité service leen ko tuddee ma si ànd ak sama manager mooy euh, sama papa Tafa ak sama jigéen Mariétou Diop ak soxna madame Sow ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp jàpp nañ si. Euh, mm. vraiment dañ doon toog sax nit woo ñu téléphone allo ban dama gis nga lancé benn affaire ni da ngay def social si prison yi dama bëgg a dugal sama participation Sénégal gépp presque jàpp nañ si ñuy ñaan tamit mu continuer defuñu ko ngir wut xaalis defuñu ko ngir dërëm buñ ci am wallahi lazim danoo jël suñu xaalis di ko def ñi ñi fekk si ñu si ñu jël boole dem yóbbu te bëgguñu mu yem loolu mooy 3S bi social rek lay dox. ak dimbaliwaati. waaw ñu ngi ciy woo ñëpp nag voilà. mais en dehors du série est-ce que tey jii nii c'est-à-dire am na relation ak ku ci mel ni Awa Cheikh wala yeneen participants yi nga xam ne ñoo nekk biir Babel. waaye léegi rek maa ngi déggante gars yi léegi léegi Babel Babel du du du troupe compagnie la yaa ngi du benn daje rek gars yi jël ay acteurs sélectionnés non noonu la demee mais ba mu demee ba si biir yàlla suñu borom moo ko fondel boppam def ko benn genre famille boo xam dafa suude tey lu garaw laa lay wax de tey Babel tey benn nit bu mu ñëwoon pour bëgg ko yàq day am problème parce que kenn mënu ko tas parce que doon nañ famille boo xamante ni tubaarkàlla yàlla rek yàlla nañ ko yàlla gën a teel kenn ku ci nekk bu gisee moroom da koy bëgg a lekk ndax amour bi muy yëg si moom wallahi nag. Awa Cheikhou Jojo Mbow Leila Fa Nabou yi ñoom ñëpp samay gaañ la. mais kan la la ci yàlla gën a boole mu leer la kii am ngeen ay relation yu particulier hors série. ñoom ñëpp. non mënta nekk ñoom. wallaay ñoom ñëpp barki yàlla ñoom ñëpp samay gaañ la wallaay ñoom ñëpp. mais di nga ci am féetal. féete. Ah, ñoom ñëpp parce que boo xoolee dafa am benn complicité bu nekk ci sa diggante yow ak a Cheikh. waaw sama xarit la sama gaañ la Awa Cheikh sama xarit la sama jigéen la vraiment ñuy sekk teraanga yu bari macha allah muy ku baax nag. ku baax lool waaw. ñu ñaan suñu borom dawal ko jàpp. amiin eh, gis nañ tamit tàkkusaan bi macha allah. Mhm. ni mu réussir waaj bi nan la demee ak bi ngeen ñëwee ba teg série bi ni ko Sénégal yi di dundee lan nga yëg te fekk ngeen wàcc oto beeg yooyu di gis sa bopp daal xam ne innovation am na bu baax a baax a baax. waaw sant yàlla rek yéeg nañ ci lu bari waaye feccum liir bu neexee nday jaay jàpp si mbagg yi. ndax euh, nit doomu aadama sa jëmm sa jëmm ki la ko mën a sàngal ak ak lu rafet mën la ko aaral ba ku la gis xoolaat la ku la gis am yéene photo la kooku mënoo koo fay mooy suñuy partenaires yi nga xam ñoo doon àndal ci film bi commencement ba fin muy ñu baax waaw mën naa ci tudd ku mel ni Assane Fall borom Global Textile sama xarit la moom sama xarit la yàgg na vraiment jàpp na ci côté yëpp ak ku ci mel ni Djili Fassane moom ji ma sol yëpp moo ma ko jox boolu boo gisee ma sol yëre tubaab rek si jili fasan la jóge ak euh, sama sama sama waa ji ara ara ara couture moom tamit jàmbaar la vraiment mhm. waaw ñu gis ni tamit c'est-à-dire la waaw taalibe lool lool lool ñu bëggoon a xam relation yi eh, maanaam tey lan la la sëñ bi defal ah, ba tax na wayu rëy woowu <laughs> maanaam daal kéemaan ñu la wan li nga wax rek ne de li ma sëñ Saliou defar. waaw loolu du ma si dugg nag day yàq émission bi. non dañoo bëgg nga may ci tuuti rek waxtaan. day yàq émission bi. non nañ ci waxtaan dégg tam ngi neex. en tout cas Serigne Saliou daal. Mm-hmm. sama Serigne Saliou la. wax ñu wax ñu rek lan la lan la. dafa bari parce jii nii nii. dama dama dama doon xale. Mm-hmm. dama doon xale gisee ak Serigne Saliou am lu ma wax ma koy gis moom loolu la ma defal mm-hmm. waaw. mais am nga fu ngeen jaar am nga des fois nga am fo loo dugg wala sax nga nekk ci situation bu difficile mu yéen nga gis ni maam am na maam am na taxawaay waaw ci ban la la la taxawoo tey sama xarit la sama xarit la ñuy ànd ba nekk xale ba léegi mhm. dem nañ tuuba war a ñibbi suñu saak suñu saak yortuñ paas ma ne ko saa yi dafay dañuy ñibbi de ñëpp di ñibbi mun ma wax ah, dañuy ñibbi kay ma ne ko nan dem ñu dem garage ñu ñu jëm yoonu garage romb eh, kii jumaa ji man ko ziar nga mun ne noonu ma ne nan dem ziar biñ duggee di ziar ñu taxaw si buntu jumaa ji ma ne ko jarul di dugg fenn nan taxaw fii wax ak ñoom parce que koy nekk Dakar di ko ñaan mu lay fekk foofu boo ñëwee ba jàkkaarloo moom war naa mën a gaaw nest pas loolu laa la waxoon. Mm-hmm. walaay laazim ma ñaan sama soxla si buntu bërëb ba laa taxaw ñaan sama soxla ñu dem bi ñu dem ba si yoon bi ba jub garage bi am suñu benn law bi su grand euh, sepp la. ñu dajeeg moom mu ne booy fu ngeen jëm garage ñu ne ko waaw mu ne kaay ma yóbbaale leen ñu yóbbaale leen ba ñu waajee garage mu jox ñu ku ne junni est-ce gis li ma la wax. Hmm. mu jox ñu ku ne taman ba may ñaan dama ni ah sëñ bi bëgg naa ñibbi taw ma paas de wallaahi lazim te ñibbi xam nga damay dugg sax tamit ñu dóor ma xamu ne rek damay ñibbi kii ma ma pare ni ko loo ñaan mu ne loolu la ñaan moom it dafa ñaan ni bëgg na ñibbi ma amuñu paas wallaahi lazim barke yonent bi li ma la yàgg na de ay 2012 ah 2011. mu jox ñu ko ne junni maag moom ñu dugg ñu oto bi ba egg ndar apprenti bi laa junni paas <laughs> mu ngi nii ñëw ànd barki Mouhamed apprenti bi laa ñun ñu wàcc di wër apprenti gis ñu ko taxaw taxaw ba sonn ñu gis ñu apprenti bi ñu dem ñibbi wallahi la azim barki yonent bi ah yooyu yëpp jaar nañ fa si yu ndaw ndawaan yi ma la mën a wax mhm. waaw yu ndaw yi ma la mën a wax quoi moo nekk noonu ndax boo xoolee cofeel bi da koy gis ci way bi carrément waaw daf moo tax nga préféré duñu wax bu ndaw bi waaw bu bu ndaw bee baax na neem si bu ndaw bi sinon bu mag bi day toj. parce que ñu bëgg ñu bari bëgg nañu xam sa diggante ak Serigne Saliou. dinañ ko xam. wax ñu ko fii maa ngi ñëw maa ngi ñëw si Serigne Saliou yeneen façon léegi rek yow yaa koy njëkk yëg. maanaam da ngay defaat way wala. yooyu loolu yëpp surprise la bàyyil ban egg si <laughs> incha allah. Mm-hmm. instant bii lan mooy projet yi. yi moom bari na man ñoo ngi sunu ñoo ngi sunu roq di liggéey comme avant. ñun même tournage bu ñu si nekkee bu ñu jógee tournage guddi gi dañuy liggéey ñun dañuy liggéey chaque jour que jëfe waaw di xaar nag producteurs yi waaw ñun ñun liggéey dafa yàq si ñun lu bëree bari dafa mu fay ñu ko mm. waaw daf ñu koy fay de. mu mel tamit sa activité yu bari biir ndar nga ko nga koy defee est-ce que mm. ñëw bekki bi du andi tamit maanaam du metti sa côté mm. ndax. yaa ndax ndar nga logé wala. non man maa ngi Dakar mais nag ndar laa defee sama lu bëree bëri sama enfance lépp ndar laa ko defee mais maa ngi dakaar mhm. sama yaay mi ngi Saint-Louis ma koy nuy bu baax ña ngi dem ba Thiané maa ngi koy nuyu bu baax di ñaan yàlla mu bàyyil ma ko fi ba ca kanam ak yaayu jullit yëpp ak sama yaay daba cuun mhm. na fi yàgg moom it lool. Mhm. ak seen mag. yàlla bay leen benn benn dégagement bu am ci côté ci ndar-ndar yi te loolu dañu koy gis ci Sadikh. bal la bari tiitër bi. waa gis nga doomu adama góor bu nangoo liggéey góor bu nangoo liggéey nangoo ñàkk dafa war a bëri tiitër xam nga fan lay jóge nga liggéey ba wàcc jël sa xaalis compté mu leer ne lii yaa ko liggéey premièrement tiitër fa la jóge boo koy teg rek doo ko tegee normal da nga fee nii parce que yaa ko liggéey mm-hmm. comprendre nga voilà loolu mi loolu moo tax danoo nangoo liggéey moo tax ñu nangoo bëri tiitër ñu pénétrer ci ci ci vie bi est-ce que ça est parce que instant bi nag bés bi ne nañ fin wu saison yi danga ko ne ngeeñ dégg ko carrément instant <laughs> bi na xale yi sax bàyyeetuñ la de xale faalewul ma sax xale yi faale man daal damaa jaaxle sax man dama mel ni ku dëgg liggéey jàmbur ah, benn xale faalewu ma mm. xaw ma nu mu demee noonu mais fin bi moom da ko téye carrément yow imaginer bi ngay dugg si ànd ak Awa Cheikh Jojo def def grand mbubu balaa bi. aju beeg yooyu waay waay comme ni ñëpp duggee rek la. mais aju beeg yuuxu gis nga bu ñëpp bu ñëpp taxawee. nga taxaw sa njoolaay di feeñ da ngay bàyyi ba ñëpp taxaw ba toog nga door a sa njoolaay mais dama bàyyi ba ñëpp taxaw ba toog ba ñëpp dugg rek ma buruxu la ànd ak ñoom xam nga ay xalil ay fa ay ñoom ñoom lay laylaak yooyu bu ñuy dugg ñoom ñoom Marème Thiam papa Ndiougo nga topp seen ginnaaw faaw ñu yuuxu la nag yow tamit ah mais tamit bés bi dernier temps yi téewu ko de. téewu dara surtout maa ci fin bi noonu. déedéet bés bi moom dañ koo séddoo rek maanaam Babel dafa moom Sénégal loolu la loolu ngay gis seen mais nag di commencement bëri woon na ay polémique parce que dangeen ngeen boole ay genre famille lu ëpp nit ñi dañ koy dund seen kër lu ci mel ni ay ñàkk seeg ñeeñoo duñu may kii sama doom yéen ngeen ñëw ngeen incarné ñeeñoo cent pour cent ci série bi waaw parce que dan naan lu mag mos moo gën lu mos mag. comme na. nga lu muy tekki. maanaam mag dina dund dara yenn saa moom moo dund loolu mais bu ko bu ko dara dundee rek du baax. da am genre da ko dund wala. non ñun dunduñu ko parce que boo imaginer ñeeñu Sénégal dëggantaan du nu may seen jabar euh, seen doom yenn yenn façon xeet yi xam loolu la gars yi gëm dëggantaan et pourtant man gis naa man gis naa ñeeño yu sëy ak ñeneen gis naa ko gis naa tamit ñeeño yu nangu tamay seen doom ñeneen gis naa ko yëpp am na fi loo ni amul neel dunduma ko mais am na. Mhm. wala gisuma ko mi am na. mais lu waral xeebeel bi parce que armeeru ñeeño amul bu géwal. noo xeebeel moom boo seetaanee baal ba mu jeex doo gis benn yoon bu nu xeebee ñeeño wala géwal wala géer amul. ah wala boog fàtte naa ko nga fàttali ma ko. ndax boo xoolee euh, sa sa sa sœur bi. Leila Leila waaw. paa bi ak côté bi bi ko njëkkoon a takk si. waaw dañu carrément ñoom ay ay ñooñu lañ. paa bi waxu ko de. famille ba la ñoo opposé ñoom Babacar. ñoo opposé la moo tax mu paa waxee noonu. bi mu waxee loolu Babacar dafa forcé ni day ñëw takk si mais li tax Babacar mujj bàyyi mooy. Euh, kii Leila moo jaar si suuf dem non non euh, kii moo jaar si suuf dem ni Awa Cheikh moo jaar suuf dem yàq fa ni Layla dafa am gaaf dafa am rab bu bon bu ko baaw ko takkee day dee loolu moo tax euh, papa yi Babacar mujj bañ jaar foofu mais du dara. Mm-hmm. te yaakaar naa wane nan euh, kii bi exception ba mu leer na ñi ba ñëpp xam. Mm-hmm. ñu xam ni carrément mbaa ju ko bañuñu ko may ngir ñeeño wala nangam papa Ndiouga def ni ko ku fi ñëw di la ñaan si bu dee jullit dama la koy may loolu papa Ndiouga wax man man. maa ni ko kenn du la may ku dul ñeeño mais loolu tey loolu loolu bëri na am na ñu mu yàq seen vie. mais gis nga théâtre théâtre day am règle am exception mënoo tëb tey nga ne ñeeño bi daa ñëw ñaan si ñu ne waa jëlal mais faw ñu wax carrément ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal doon ay ñeeño wala ci àdduna ni du may seen doom kii ak kii faw ñu wax leen ni carrément armée lu géer ak géwél amul. Mhm. mais pour man faaw nga pour nga wan ko ñooñu man faaw ma jouer loolu man en tant que ñeeño ñeeño comme man yedd ma ba ñu xam ni carrément ko dëgg la kii wax euh, affaire yi jullit ak ay yëpp comprendre nga. ok foofu la ñuy waxee ko mais sikkaluñ kenn gaafaluñ kenn. ok mu mel ni tamit euh, euh, Babel dafa am. yenn saa yi daf may raw mais damay jëlaat sama temps seetaan ko si internet bi ndax fan yi tournage yi dafa xawoon tar suñu wax dëgg yàlla dafa ñoo xojoon wallahi lazim mais daal li ma la mën a xam mooy Babel Babel Sénégal euh, xasuñu kenn. non non mais parce que dafa xaw a nduróog bete bete ndax boo xoolee ñee famille ñeeñoo la ñuy incarné yéen tamit famille Ndiouga am la maanaam am na ressemblance bu bëree bëri. waaw Babel comme ni ma la ko waxee théâtre la boo xamante ni dañ ko togg ay at teg ko yàlla suñu borom def si succès àdduna bëgg ko ñuy ñaan suñu borom deuxième saison bu ñëwee doon loo xam ne day toj àddina. loolu daal lan bëgg hmm. loolu lan loolu lan nekk mais ressemblance bi nga xam ne am ngeen ko ak bété bété nag doo ma bàyyi doo seetaan bété bété waaw looloo tax mënu ma si tontu bu doon dama ko suivre ba xam mën naa ci wax ndax wax dëgg yàlla nag ay yu mag laa fa gis macha allah ay yu mag laa fa seen hmm. xam naa ñooñu duñ seelu na xari xam naa ma ngay toj mais gis nga ni ñu doon ni ñu doon ki nga xam ne moo di Soumboulou wax la ëpp yi mu doon wax suñu sœur la Soumboulou suñu sœur la macha allah mën a lool doon ndaanaan nag muy ñaan yàlla defal ko jàmm waaw day jàngale rek. mais nañ ko doon critiquer. Théâtre bu yarewul yeetewul day yàq. mais Babel dem na ba jeex daawuñ ci dégg ay saaga. mais ankay gis nga ko man saaga nan doon dagg saaga. man saaga neex ah. day wax ay géeru xaraam yi nangam nangam. est-ce que ah. loolu bokk na ci jàngale. loolu de yaa ko wax en tant que acteur nga xam ku nga jàng théâtre ndax nee nga théâtre daf la yàqal lu baree baree baree baree. Hmm. tey jii nii tey loolu nga di ko seetaan. est-ce que dans la dans la vraie vie maanaam wax la bu war a génn ci genre yu acteurs yu toll noonu. ah seetaan gu ma ko mais bis bu ma ko seetaanee incha allah rabbi xam naa ni moom dañuy defaat émission ma ak yow. ndax loolu faaw ñu wax si. wax dëgg yàlla man loolu moom gisaguma ko yaa ma ko woon. te dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko gis. dinaa ko gis te dinaa si wax. question bi marié ou ou célibataire. <laughs> dama ko may. ah est doo ñu ko wax rek marié ou célibataire. pour l'instant célibataire. célibataire lan moo la gën a marqué mu metti la trop ba saay boo ko xalaatee rek da am lu la metti sama àddina man man dara méttiwu ma mm-hmm. <laughs> man bu ma dara méttee dootuma Baay Faal Cheikh Ibra na Baay Faal dëgg ak góor yàlla dëgg mooy kii bàyyi ak nit ñi deram tabale nag seen der dégg nga mm-hmm. góor yàlla dëgg mooy kii bàyyi ak nit ñi deram te bale nag seen der. mais nit nga. doomu aadama la kay. kese mais dama ni góor yàlla dëgg laa góor yàlla laa man. mais da yëg lu metti da ko dale lu neex da laa yëg ak lu naqari ay wex suukar kaana yooyu mais ay met non dara metti ma man Baay Faal parce que milieu théâtral dafa bëri ay ay affaire ci biir. am ah, ngi ci biir xëy na dama see dajagul xëy na dama see dajagul ma si dajee rek incha allahu rabi man man du ma tricé ban facette la ñuy xaar ci deuxième saison bi. ban visage du doy waar yu yéeme xam naa ni ma leen si ñamalee tuuti tam gars yi dem buntu maro dinañ ko def suba mais damay baax mu <laughs> dina garaaw. dina garaaw yaakaar na am na lu ma la si jot a ñamal tuuti. Hmm. dina garaaw incha allah. dina garaaw. kon ngaa tëj. Hmm. Eh, wax na si ñaar mais foog mu wax ci aw bi. parce que il a été aussi un homme. ci série bi boo xam ne dafa jeng wala dafa toppatoowul aawam ba problème am ba hmm. ba mu dem loolu aussi en tant que homme lan ngay wax aussi ñi nga xamante ni peut-être dund waaw am na ñoo xam ne dañuy dund loolu gis naa tamit ku ko dund gis naa ko dund ku di am jabar ju baax macha allah di sàggan ba mu dem mu toppaat si man rek topp naa ci wax ba tas jabar ja neen du ñëw bu ngeen yeboon jàpp si nag mu ñëw xam na boppam ki may wax hmm. waaw mais gis nga yàlla suñu borom bu la bëggee dimbali day mel ni lay toroxal yàlla bu la bëggee dimbali day mel ni lay toroxal te ndimbalu yàlla dëgg mi ngi ci def erreur xam ko kooku la yàlla dimbali ki nangoo am ndimbalu suñu borom mooy ki nga xam ni day def erreur reconnaître ni man ka def na erreur kooku yàlla nar na laa dimbali mais kii def erreur taxaw ci erreur bi appuyé wu ni def mu erreur kooku yàlla da koo toroxal wallahi laazim moo tax ñuy ñaan képp koo xam ne am nga jabar ju baax téye ko nga góor góorlu si sëy nag communication moo ko yor sëy communication moo ko yor te communication bu amul si sëy dara am fa te gis nga doomu aadama buy waxtaan ak jabaram wala ak jëkkëram ki nii waxal ki nga xam moom lañ ñëw pour waxtaan ak moom na déglu ngir comprendre bañ a déglu ngir tontu mais bu nit ñëw pour wax la. ngay déglu di yaa xam ci lan nga ko war tontu doo mos a comprendre li muy wax booy déglu bul xalaat tontu baal ba mu pare boo waree tontu nga tontu boo wartoo tontu nga ne ko dégg naa la dafa am benn soxna su ñëw si benn sëriñ ni ko man de sama jëkkër saay wàccee daf may dóor ba muy tëdd te dama bëggoon nga dimbali ma dafa ma loo xam dootuma dóor sëriñ bi jël benn bitel def si dara jël ay xobu ay kayit ñii daggati dugal ko si xooj ko yëngal rek def si di lem ni ko am bu heure bu wàccee rek lokk ko heure bu wàccee lokko biteel bu mag bu toll nii soxna si heure bu jëkkër ji wàccee mu lokko jëkkër ji ñëw ba tëdd duñ def dara ñoomee du ko def dara dem ba biteel bi du waaj jeex soxna si ne ay sëriñ bi ay na de man ba ma laalee biteel ba léegi kenn dóoru ma dem ni ko sëñ bi dafaatal ma beneen biteel ndax biteel baa ngi waaj a jeex mu ne ko biteel def ma si dara log bi nga daan log bàyyi tontu moo tax dóoratu la boo téyee sa làmmiñ kenn du la dóor tontu yi nga daan tontoo tax ñu lay dóor kon jigéen ak góor pour nekkee faaw ñu communiquer mais tontonte bi na wàññeeku waaw allah <laughs> mu ngi noonu <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di mm-hmm. di rafetlu tamit uh, opportunité bi nga xam ne may nañ ko pour ñu waxtaan ak yow mm-hmm. am yu bari tamit leeral ko sénégalais yi parce que dañ dans la vraie vie xam ci télé bi rek lan lay gisee yaakaar ni que ne mais ku ko gis xam ne bàyyi Fall la mm-hmm. ah nit ku nit ku wàcce boppam la te ñu ngi lay xaar tamit ci deusième saison bi ak uh, yu doy waar yu garaaw jeu d'acteur yu amul fenn donc dañ lay bàyyi rek defee ñu daal waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yaan ñaan yàlla mu def si réew mi jàmm président mënut a liggéey réew président mënut liggéey réew waa réew mi ñooy ànd ak moom jàppale ko mu liggéey réew mi mm-hmm. mais kenn ku ne toog sa roq te naan na defar fii na yàq te yow yaa ngi yàq mënul baax kon ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw président yi na leen di wax dëgg ngir yàlla parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaa ànd ak Ababacar rafet ànd bi daan ànd lan la Ababacar daaw ko raayal ginnaawam de déedéet da ka daan wax dëgg parce que nit la doomu aadama la te mooy yonent bi moo nu gën ñun ñëpp te Ababacar dafa daan wax dëgg kon nañuy wax président yi dëgg nañuy wax njiit yi dëgg man bugguma ànd ak doomu aadama ngir nga teg ma fenn ba ma lay fenn man ma lool dama bëgg képp ku nekk nit na ko wax dëgg ngir yàlla président bala muy am xel mu dal dëgg muy dégg dëgg di xam ni carrément kat fii lii ma fi manqué fii lii ma fi am réew mi leen mu jëm kanam kenn ku ne fa nga ne defal ko ñu xool ku ne fa nga ne defar ko mais ku ne fa nga ne nga bëgg a yàq tanaan na président bi defar na yokk na wàññi rek nga mën yow doo def dara loolu du noonu loolu du jëmal réew kanam loolu daal la ñuy ñaan suñu président yu ñu bàyyi si xel théâtre bi na si président yi jàpp ministre bi ministre bi na jàpp si artistes yi xam na si jàpp acteurs yi nga xamante ni artistes comédiens yi nga xam ñu ngi joué ak musiciens yeeg ñëpp art moom dafa yaatu nan dem wuti carte SODAV parce que mënuma concevoir nga ne man acteur laa te amoo carte nan dem wuti carte ba fu la nee bëri tap tap nga mën a nii lii sama carte ni nga war a am carte d'identité nationale noonu nga war a am carte SODAV kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp euh, may nuyu waa Sawa boutique Sawa Sawa prestige maanaam salon la. bu ne fii si Fass Kounoune macha allah ñuy def yu doy waar mu ngi noonu may ñaan yàlla defal ñëpp jàmm yow tamit yàlla na la yàlla defal jàmm jubboole la ak sa boroom kër eh, defal la tawféex bu baax waaw ah, ah amoo nee amagul kon amoo. <laughs> Euh, waaw kay borom añ euh, bi borom añ bu neex bi. waaw añ ngi noonu. Euh, ami. ami ami moo jaar ci añ bi tubaarkàlla ku baax moom it moo ne ci salon bi euh, di def yu doy waar mm-hmm. ok ñu leen ñëw defaru mm-hmm. mais non waaw ah, ok ñëw leen defaru <laughs> voilà d'ici là portez-vous très di leen wax ngeen gaaw daw abonné aimé like et partagé ngir ngeen jot information yu doy waar ci biir Univers Info TV euh, donc bu leen fàtte bës cloche de notification bi mm.